ce qui s'est passé li xew fi tey mooy man dama def cours huit heures dix heures ñu muy génn récréation j'ai vu que les collègues là y avait un attroupement devant la salle des profs mooy lan moo xew ñu ne non benn dame la ñu agressé fii ñu ma laajte information euh, on a ñu tenu benn réunion AG tous les collègues arrêté cours yi à dix ñëw taxaw la dame était blessée vraiment gravement blessée ah parce que soo leen gisee image di ngeen xam alors euh, quand on s'est réunis a Eh, mi ngi nekk ci CEM euh, bi nekk à côté fii Thierno Birahim Mbacké moom fa la daam bi nekk l'élève ki l'a agressé mi ngi nekk au CEM CEM euh, Blaise Diagne ñu ñoom nag école yooyu yëpp ci lycée bi la ñuy defee sport fii la ñuy am terrain ñoom CEM bi ak waa CEM bi nekk à côté fii fii ñuy defee seen cour EPS yi alors entre temps quand il de faire son cours il paraît que élève bi dafa ñëw di ko di di déranger foofu loo xam ne kii amuloon sax cours EPS cours histoire géo la amoon mu ñëw mu ñëw ci terrain bi di ko déranger mu mu demandé ko à ce que mu sori foofu parce que mu ngi koy déranger entre ñoom ñoo fa nekkoon seen propos yi ñu échangé xaw ma lan la ba femme bi l'élève est venue attaquer la femme professeur blessé ko gaañ ko agressé ko voilà aussitôt après elle est venue nous en parler aux collègues là les gens ont aussitôt tenu une réunion d'urgence et ils ont pris des mesures actuellement di ñuy xool yan mesures sur le plan de l'école la jël ak yeneen mesures yi mooy porter ko plainte c'est ça c'est elle qui va le faire elle est chercher un certificat médical pour porter plainte mais les les collègues aussi euh, syndicalistes ils ont pris l'affaire en main je crois que les réactions ne vont pas tarder li koy li ñu am koy sécurité lycée bi la ñu war a xool sécurité des enseignants et du personnel parce que aussi quelque pas euh, nous au moins on est on a des tenues et tout ça Mais quelquefois, il y a des gens qui, qui, qui, qui viennent, qui, d'autres établissements qui viennent, qui n'ont pas de tenue et tout ça, ils respectent, ils ne nous pas la tâche. Voilà, nous avons des tenues. Mais nous avons des écoles qui ont fait sport fille, nous avons des tenues. Donc finalement, doo xam kii est kii Un bateau, ça, pour qu'on ait un dougou ci bir euh, lycée bi pour laaje mu ne fi jàngee mais bu nekkee ab Blaise Diagne moom nit ñi dañ ko xam parce que sinon ba tenue bu ko solu dañ koy dax mais bu nekkee beneen école la te ñooñu respecté wuñu insisté wuñu trop sur la tenue bu ko neexee mu dugg ne euh, tel école la pak mais loolu mooy suñu problème donc il faudrait que ñu gën a veiller à ce que ñiy ñëw fii sol seen tenue ñu xam leen. ah non fii moom ñun le respect de lage moom dafa am sur le plan africain et sur le plan peut-être même mondial ñun moom mënuma gëm ne que luy xew par exemple dans certains pays là européens ou bien américains mënul am fii parce que ñun. d' abord élèves yi suñu doom lañ suñu jarbaat suñu ay frères on les prend man bët boobu lañ leen di xoolee da gis koo xam ne dañ ko sanctionné sax uniquement parce que simplement tu aimerais être à la place de son papa parce que leer na ne kii eh, caaxaan la bëgg a def léegi tu obligé nga jël ay mesures yow toi-même pour corriger à la place du papa mais comme que aussi que système la il faut que parents yi aussi jël seen responsabilité di jéem a yar xale yi ñun dañuy def suñu kéemtalaat kattan mais des fois gis vraiment éléments yoo xam ne c' est qui ont raté leur éducation de base. Donc nous, on essaie de récupérer le maximum possible, mais quelquefois, on n'y arrive même pas. Voilà, c'est ça le problème.